waaw euh, merci beaucoup li ci suñu position mooy euh, loolu mu taxawal daanaka nekkul ndax direction parti bi muy président Wade secrétaire général national secrétaire général national adjoint Omar Sarr le candidat du parti Karim Meïssa Wade amul kenn ku ànd ci li ma Mamadou Lamine Massaly taxawal te it fii Thiès du responsable ancien ñoom président magget Diouf ñoom Pape Moussa Diop ñoom Maïssa Dieng Ndeye Amy Dioum ak ñun ñi ñëpp ak responsable yi nga xam ne c'est responsable parti kenn àndul ci loolu ndax tey woote nañu fële permanence bi gis ngeen ne les responsables ñëw nañu Massaly loolu mu taxawal boppam rek la engagé te moom li tax euh, kenn mënta euh, gëm loolu mu taxawal mooy pouvoir bi di euh, président Macky Sall ak waa APR dañoo jox Mame Mbaye ay moyen mu jox ko Mas Mamadou Lamine Massaly mu indi xaalis bu bëri dugal ko biir Thiès di jënd nit ñi di déstabiliser le PDS ñun nag soxlawuñu xaalis soxlawuñuy milliards li ñu soxla mooy dañoo gëm ne le PDS war na delluwaat au pouvoir dañoo gëm ne suñu candidat Karim Meïssa Wade mën nañu ànd ak moom mu dem gagner les élections en 2019 pour mën a régler problème sénégalais yi ndax sénégalais yi sonn nañu ndax nguur gi di fi nekk defu fi lenn. donc loolu na ko ñëpp xam Thiès Mamadou Lamine Massaly jiitewul la parti démocratique sénégalais te ko mel ne Massaly sax xanaa bu jiite woon PDS dañoo war a tëj parti bi ñam yi ndax Thiès nag wax dëgg yàlla ville bu toll ne Thiès nga mën fi jiital wala Massaly mën ta nekk donc te ñu xam ne ñun dinañ waajal ay tournée dem commune est commune ouest commune nord dem ci 15 collectivités locales yi boole fédération yëpp taxawal pour waajal élection législative yii di ñëw te loolu ànd nañ ci ak secrétaire général national muy président wadd ak secrétaire général national adjoint di Omar Sarr ak si candidat parti bi di Karim Meïssa wadd ñoom ñëpp démb rek jot nañ leen téléphone wax nañ ñu ne ci ñun la ñu compté te ñun ñu ngi compté ci responsable yi fi nekk les icônes du parti ñoom Maïssa ñoom Pape Moussé les responsables anciens kon tey nañu xam ne au niveau du parti démocratique sénégalais y a un collège de responsables yi fi nekk di organiser wu pour waajal élection yi waaye du tey du suba Massaly mësul jiite euh, Thiès te incha allah du ko mës a jiite ndax il n'est pas question ñuy mettre n'importe qui à la tête du parti démocratique sénégalais